salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi mbokki internautes yi ñuy seetaan fu ngeen mën di nekk ci biir réew mi di Sénégal ak ca bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balaax te di leen balaax di ñaan yàlla suñu borom mu boole ñuy jégal ñu jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ko ñaanal mbooleem kilifa yi dina yëpp mbokk yi di leen ndokkeelaat ci bis bu mag bi nga xam ne moom lañ génn muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bisub màggal Touba di bis bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo santaane képp koo xam ne mbégam mooy sa mbégte bis bi su del seetee ci àddina ñu ko ci santale yàlla loolee nag mu mel ni amal nañ ko ci atum 2023 bi mu dëppoo nag le 4 septembre doon fukki fan ak juróom-ñett ci safar 1445 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ñu màggal ko santaat bu baax a baax yàlla suñu borom mi ñu may ñu fekkee ba dundal ko am ne noonu la ko sëriñ bi santaane màggal Tuuba événement la boo xamante ni dañ koy dundal avant pendant et après muy événement bu mag a mag boo xamante ni comité d'organisation bu màggal bu Tuuba ci njiital Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir ak mboolem commission yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bu ni mel dañ ciy def liggéey yu am solo ba tax na ginnaaw màggal gi ñu fas yéene amal jotaay boo xamante ni dañ koy seq ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Cheikh Gaïndé ma mi nga xam ne moo jiite commission culture ak communication ci comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba ngir ñëwaat nattaat li nga xam ne moom lañ def ci Magal Touba édition 2023 bi ci fànn yu wuute. sëriñ bi ñu ngi lay euh, nuyu di la ziyaara di la masaw coono ndax màggal gi li ñu door jugee rek gis nañ coono yu mag a mag yi nga xam ne dañ ngeen ko ci lépp rek ngir wasaare njàngalem Cheikhul Khadim waaye taxawu ñi nga xam ne ñoom lañ war a euh, jox li nga xam ne moo gën ngir ñu mën a dundal màggal gi Touba Mbacké rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy gan ñi. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh ñu ngi leen di di fay di am mbégte ci euh, ànd ak yéen ngir dikk ci xayma. li nga xam ne moom lañ jot liggéey ci màggal gi di ci comité bi liggéey ak li nga xamante ne bii moom la màggal gi làmb woon lépp ndax màggal gi li nga wax léegi dëgg la màggal gi dafa rëy rëy na rëyaay boo xamante ne bii euh, foog naa ne waxtu wu nekk dañ ko war di gën di saytu di ko gën di xayma ngir xool naka lañ ci gën a mën a euh, jariñoo ndax njariñul kese la moom la feese namm biir ak biti Euh, kon aussi ginnaaw bu ñu leen sante nag yéen ci seen taxawaay bu bu rafet muy mbooleem presse bi yëpp ndax euh, yëf yi ni niñ ko jotalee ren xam naa ne du ma ne mus am de waaye ren moom ñëpp nangu nañ ne jot na ci ci anam goo xam ne anam gu gu mat sëkk la di sant tam ki nga xam ne mooy doon liggéeyloo muy Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne moom mooy Sëriñ Tuubaa tey ji waaye nag di sant surtout nag kii di Sëriñ Bassirou mu Cheikh Abdou Khadir mi xamante ni moom moo jiite comité d'organisation bi te bépp ndam bu ci am rek gannaaw yàlla jëmm ma tax ndax moom moo ci taxatuxaay boo xamante ne bii kenn ku nekk loo aajowoo rek waxtu wu nekk na nga ko noonu la ko joxe ba tax ba commission yëpp liggéey liggéey boo liggéey bu rafet la ci coordination sëñ sëñ Ousmane kon ñoom ñëpp ñoo mat a jaajëfal ñoom ñëpp ñoo mat a ñoo a sant. sëriñ bi ku ne Magal Touba ne wàllum culture. muy euh, li nga xam ne dafa jëm ci euh, li ñu ko doon waxee ci jamono yu weesu ci euh, bernde yi nga xam ne moom lañuy baaxee taalibe yi muy xéewal yi yi nga xam ne ñu sant Cissé Lo moom la ñuy def waaye bernde ru yi da ciy am solo loolu ban liggéey la ci commission culture bi def ren ji ci màggal gi liñ ci jiital rek mooy gis nañ Cheikh Mamadou Mountakha bi ñu defee déclaration màggal gi ci le premier safar santaal ne woon na njàngal alxuraan gi te jiitaloon ko ci liggéey boobu ndax loolee wéyale nañ ko ba ci màggal gi ak lan lañ ci jotee liggéey ci wàllum jàngu alxuraan googu. waaw xam nga benn ruu yooyu nga wax daa nekk li nga xam ne mooy li ci ëpp solo euh, ndax léegi beneen berne beneen berne bi sax léegi yaatu na yaatu boo xamante ne bii daanaka bis bu set ci at mi ñëpp dañuy màggal seeni kër. donc xewli si moom noonu la noonu la toll. waaye bis bu toll noonu boo ko boo ko wootee ñu ñëw sa ay nawle yëpp dikk. ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, kenn ku ne aussi gis ne sëriñ bu mag bi euh, ni nga xam ne noonu la taxawaay bi mu am ci xam-xam nga xam ne man nga ne li mu bind bu fekkee am na ko ko bind bëriwul boo man xaw ma man xaw ma bind loo xam ne tol na li sëriñ bi bind euh, ku mel noonu nag boo koy boo koy liggéeyal nga xam ne bañ koo bañ koo bañ ko jiyee ne ko dangay ngay jeexaat dama waxoon ñépp xam nañ ko damay jeexaat waaye nag ci yagal yàlla ak xam-xam kon foog naa ne foofu mooy fa ñu war a insister ndax loolu mooy li euh, mooy li jariñ euh, ba tax na commité bi jël wàllu xam-xam bi jiital ko d'abord ngir nit ñi jàng ci ngir euh, tasaare li nga xam ne mooy njàngale Sëriñ Tuubaa ci biir réew mi ak ci bitim réew ak nag ci niti xam yi nga xamante ni ñoom lañ invité ñuy dikk di ko di ko fekke si ñu gis ne màggal gi dafa xat ci jëmmi bis màggal gi ak sax fan yu ko xaw a jiitu tuuti ñu ne kon loolu dañ koy tàmbali lu yàgg balaa màggal gi boo seetloo bu bu weeru teroo rek ci fan yu njëkkee ci dañuy def conférence yi nga xam ne ñu ko def ci penc yi ak raw doon di ko def ci penc yi yooyu ren ji jot nañ ko jot nañ ko def boo seetloo itam bu weeru safar teroo rek ci la mboolem jumtukaay yëpp muy télévision muy sit muy rajo ñëpp ci la ñu commencé teg ay conférence yoo xamante ne bi ak ay waxtaan yoo xam ne mi ngi jëm ci sëriñ bi jëm ci magal gi jëm ci lislaam rek kon yooyu dañ koy enregistré loo xam ne jiitu na magal gi lu yàgg yooyu aussi liñ ci def euh, bari na bari na lool lépp ñu defe ko foofu ci Touba dajale borom xam-xam yi képp ku dikk ne damaa bëgg lu ma waajale magal ci wàllu xam-xam ñu ci thème sàngam laa soxla ñu wutal la ñoo xam ne mën nañoo waxtaan ci thème boobu nga seq ak ñoom jataay euh, gis nga itam ci biir màggal gi ni nga xam ne noonu lañ doon defee ci conférence yi nga xam ne ci buñ ne suba la màggal ak ci bisu màggal gi loolu si bokkut ak plateau yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci kër sëñ Tuubaa bokk te aussi conférence nga xam ne ñu ngi ko doon def ca fa nekkoon ca ca héliport kon ay jotaay xam-xam yu bëree bëri la même cérémonie officielle bi dañ ko tuddee cérémonie officielle waaye boo dégloo sëñ Bass da ngay xam ne am njàngaleem kese la daanaka sax am benn partie boo xam ne concerne na wàllu àdduna lépp njàngaleem Sëriñ Tuubaa la kon day mel ni màggal gi ca wàccaay wa ca tàmbali ba banam jeexe lépp xam-xam la loolu nag at yëpp noonu lañ koy doxale te foog naa am na njëriñ loo xam ne indi na ko am na loo xam ne aussi yokk na ko ci màggal ndax képp koo xam ne màggal si nga rawatina sax ñi nga xam ne ña nga toog seen i kër ndax dañuy jot ay euh, téléphone yoo xam ne bitim réew lay jógee fi doon ñoo ñoo ñi gën a jariñu ci màggal gi ndax ñoom dañuy dañuy féex am jot toog mën a seetaan télé yëpp dañuy baagante liñ ci xam sax ñun ñu ne ci biir liggéey bi euh, daanaka duñ ko ci xam nga xam ne kon vrai ci dëgg-dëgg njëriñ lépp njëriñ kese la loolu aussi ñu ci sant nag waa Rawdu Rayaahiin ci seen taxawaay boo xam ne taxawaay bu bu rafet la ak seen disponibilité ñu ci sonn coono yoo xam ne ñoom fi ñu toll nii bu màggat jàllee rek tàmm nañoo waxtaane déwén yan tem lañu yan tem la ñuy euh, la ñuy indi ñan ñoo koy def naka lañ koy defee fan lañ koy defee fi ñu toll nii ñoom bu bu ñu nopp rek commencé waat seen ay réunion ak mbooleem nag borom xam-xam yëpp ñi nga xam ne aussi bokkuñ ci raw rawdu te itam di participer ci liggéey boobu ci anam goo xam ne ci anam gu mucc ay anam gu rafet la ci ci ak sellal goo xam ne gu gu mat sëkk la. Hmm. bu dee lu jëm ci wàllu njàngu alxuraan gi mel ni màggal gi tamit dañ ko ci dundal bu baax a baax. bu dee njàngu alxuraan mi loolu boo seetloo bañ ko tàmbalee ëpp na fukki at 2011 lañ ko tàmbali woon ñu ngi koy defee ci barabu jullikaay bi ci wetu armeel yi waaye loolu dañ ko fay tëjee premier safar. ci la daara yëpp di jàng ca seeni biiri daara buñ dee ne magal bi ñetti fan ñaari fan ñu jël ñu jël leen nag dajale leen ci penc mi ñu fay ñu fay jàng vingt quatre heures sur vingt quatre yëmul jàng alxuraan dañuy jàngale aussi ay ay xasida bu ne jàng alxuraan mi sëñ Xaadi euh, ah, Jaxate moo ko jiite bu ne jàngum xasida mi sëñ Musaa Mbàkke moo ko jiite ñu demee ba ñu subalu màggal ci ginnaaw tisbaar diggante tisbaar ak takkusaan ci la sëriñ Bas di ñëw saafonte ak ñoom yeewi leen muy nekk aussi jataay boo xam ne jataay bu bu am solo la ndax ci biir jataay boobu euh, ci la ñuy joxe euh, ijaasa yi nga xamante ne bii ñu mokkal alxuraan foog naa ne ren lañ fa joxe ëpp na ci su ma foog naa mën na ñaari téeméer mm-hmm. te loolu la lim bu ndaw la rek ci daara yi nga xam ne ci ci Tuubaa la ci jataay boobu aussi lu yéen am fa ci ñaari minute ca la ñu woo dong yëpp ñu wàcc kaamil bi ci ñaari minute ñaari minute ndax kenn ku nekk daa am lu la sas ñu jàngandoo ko xam nga kon bu ñëpp noppee rek kaamil bi jeex na noonu lañ ko organisé man loolu mosuma ko gis mosuma ko gis même sëñ Bass wax ma ne lii mosuma ko teg bët deux minutes ci lañ ko def kenn ku ne laa sas dara da ngay tàmbalee fii yem fi tàmbalee yem fi ñoom ñëpp ñu ñëw ku ne jàngale la sas kaamil bi jeex tàkk ci maanaam ci gàttal donc dañuy séddoo kaamil bi ñëw ci ñaari mil kenn ku ne tere leen sedd kon kaamil bi jeex na loolu bindoon nañ fi kaamil ci benn bis jëbbal ko sëñ bi foog naa ca kaloogu 2014 ba la woon bii yoon nag nii lañ ko defale loolu lépp di teg tegtale eh, moom gi nga xam ne Sëñ Tuubaa moom na nga alxuraan <laughs> ak li ko ci yàlla may jataay boobu aussi di jataay boo xam ne bu bu yitteel sëñ bi la ndax day mel ne mooy mooy lewetal lépp mooy lewetal lépp nga xam ne kon màggal gi tey Euh, nit ngi sax duñ seet loolu feet la bernde la waaye buñ ne bernde danga koy da ci am dig-dig bu yaatu bernde du du lekk ak naan rek du du loolu dong ruuy ci la bokk ah, kon loolu aussi ci bernde bi lay dugg ci bernde bi la dugg <laughs> ba léegi ci euh, wàllu googu muy bernde yi euh, bernde ruuy yaakaar naa njàng xas dëgg yëkkati ci lay bokk ndax gis nañ ne euh, màggal gi tamit euh, ñu ci bëree bëri moo xam jànkati aw yi la moo xam ñi ñi ñi ñi rajas la moo xam ñi kuréel la nga xam ne dañuy nekk ci ci ci li wër jumaa ji di ko amal loolee tamit dafa mel dundal nañ ko ci màggal gi bu baax a loolu day feeñ ci programme télé yi hmm. te boo xoolee plateau bu télévision def bu tegee koo xam ne day def waxtaan mais gis mu jàkkaarloo koo xam ne day yëkkati loolu télévision yëpp dañ koy def foofu ma la wax aussi ne fa la ñuy tëjee njàng mi ci sëñ Moussa bu sëñ Mahmad doon jiite ko moom itam dañ fay waxtu wu nekk kuréel ya ñoom itam ña ngay ña ngay jàng même gis nga guddi màggal gi waa isbu yi ci bis bi ñoom itam dañuy fanaane jàng ba ba fajar eh, keroog bañ jógee ca ca gan ña ay une heure deux heures du matin la fa sëñ dem toog fa ñëw fekk tant bi fees dell ñu ñuy jàng rek kuréel bu jàng ma noppi rek ñeneen di ko toog nga xam ne kon màggal gi dafa ci fànn googu dafa dafa matale te loolu nag jàpp naa ne mooy li nga xam ne mooy li gënal mooy li gënal sëriñ bi mooy li gënal li ko gën a yitteel te léegi nit ñi suñu borom xetal na leen ci boo aussi mooy li gën a fonk ci ci màggal gi hmm. euh, ñu delluwaat ginnaaw tuuti ci euh, conférence yi nga xam ne moom nga doon leeral sànq mi waxtaan yu am solo yooyu ndax dañuy gis ne euh, dafay am thème yu am solo yoo xam ne moom lañ ciy développé ndax ginnaaw waxtaan yi thème yooyu dinañ ko jël di ko xaatim def ay téere yoo xam ne peut-être euh, universitaires dañ ci mën a jariñu ñi nga xam dañuy gëstu da dañu ci mën a jariñu waaw boo seetloo yoonu mur ci boppam laa lay wax ba 2010 jàpp 2011 li ñu doon bind ci ay téere bari wutoon bokkutoon ci suñu suñu aada boo seetloo delluwaay bi sëñ Bassirou la doon nekk wala sëñ Mat Lamine Diop Dagana bari wutoon lool lool lool waaye day mel ne bi ñu commencé yii eh, li nga xam ne moo fi génn ci ay téere kenn xamul nu mu toll eh, ñun colloque bu ñu def 2011 ba léegi bu ñu def rek dañ koy tënk génn ci téere waa rawdu yi at mun nañu génn ay téere parce que ñoom itam waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def dañ koy boole di ko dajale di ko di ko móol di ko def ay téere luñ ci yem ci arab lañ koy génne ndax waxtaan yëpp ci arab la waaye bu ñu noppee danañ fexe ba traduire ko ci français fexe ba traduire ko ci ci anglais mu liggéey boo xam liggéey bu rafet la loolu aussi di encourager xale yi ñu gën a fonk xam-xam damaa dem euh, Nabaxiya ay 2012 2013 Mauritanie fekk benn xale bu bu dëkk Touba ñuy waxtaan bi ñuy waxtaan mu ne ma sëñ bi de yéen a ma tax a ñëw fii ndax taxawaay bi ngeen am ci màggal gi moo tax ma laxas jànk si kon loolu day am influence boo xam ne da koy da koy da koy da koy def ci ndaw ñi ndax ci kanam tuuti ku amul xam-xam dana jafe nga bokk ci ci yëf yi ndax xam-xam moo la ciy boole xale nag loolu ñu ngi koy ñu ngi koy xam moo tax ñoom nii ñuy dem di jàngi nga kon day mel ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy def daa am da da dafa soppi environnement bi ba léegi nit ñi au lieu ñu ñuy jongante ci yenn yi ci oto yi rafet ay terrasse ak léegi nit ñi ci xam-xam lañ bëgg di jongante te loolu ci kanam tuuti dina dina fës loolu nag bu dee am ne xam-xam bi dikk loolu mooy sabab bindi téere yi waxoon naa ne keroog suñ mu taxaw moom ko wax ci moo ne ma li nga xam ne am nañ ko ci pas-pas ak li nga xam ne am nañ ko ci taxawaay bu ñu amee xam-xam rek kenn duñu attan boobu ci université bi lañ waxtaan kon loolu te jii ñëpp xame nañ ko noonu moo tax téere yi moom bari na luñ ci def lu ci ëpp nañ koy tënk ba du ba réer bind ko ci ay téere mool ko tasaare ko jërëjëf mbokk yi ñu leen fàttali ñu ngi ànd ak euh, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma di président commission culture ak communication bu comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba ñuy amal waxtaan rek jëm ci xayma jëm ci euh, Magalu Touba édition 2023 bi sëriñ bi màggal gi fu ne la doomu aadama di bàyyeekoo di ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba muy ci biir Sénégal mu ci bitim réew ndax at mu jot ñu xayma limu taalibe yi nga xam ne ñoo ñëw ci dëkk bu sell bi ren tey ji ren bu ngeen defee ab xayma euh, lan la leen jox ci nombre de pèlerins yoo xamante ñëw nañ ci Touba. waaw xam nga loolu 2011 lañ commencé jàngat yu benn noonu mhm. parce que boobu dañ doon màggal rek am ginnaaw ba nag ñu ne kat. loo xamante ne bii xayma woo ko ba xam naka la day saytu gi day jafe. dëgg la ndax boo xamul ñaata nit ñoo fi ñëw doo xam lan nga war a waajal ngir nit ñi buñ dikkee seen nekkin am ay jàppandal. Mhm. boo xamul màggal gi tam lan lay lan lay jur ci ci wàllu koom ak ci yan ci yan secteur lay lay gën a génne doo xam aussi naka ngay jariñoo ci wàllu zahir ci màggal gi ak ñi nga xam ne ñooy homme d'affaires yeeg ñi nga xamante ne bi aussi dañuy yëngu ci wàllu koom ak ak li xam ne mooy mooy réew mi euh, ñu commencé woon ko 2011 defaatoon ko 2000 2015 2016 ren yi itam ñu defaat xayma yi mu Moubarack loolu moo ko defoon ren ji aussi moom lañ jëlaat mu def ko ci ñu gën a xereñ ci fànn googu ci Sénégal la bokk suñu borom may ko ci loolu aussi ñëpp nangul ko. biñ ko bi ko defee moom dafa jël juróom bunt la jël juróom bunt juróom bunt la jël ci Touba. yoo xam ne dañ fay jaar di fa di fa foog naa bi nga xam ne mooy ngaabu ci la bokk bi nga xam ne mooy mooy péage bi ci la bokk ba ca Daaru Musi ci la bokk ba nga xam ne moo jógee côté penku ci la bokk noonu la ko def ba ba mat juróom bunt léegi bunt bu nekk mu teg fa ay enquêteur enquêteurs yoo xam ne vingt quatre sur vint quatre dañ fay nekk bu kii ñëwee taxaw nangam waxtu day dem keneen ñëw wuutu ko su ko defee képp kuy dugg si rek dañ lay compter moo xam oto la oto mag la oto bu ndaw la moo xam sareet la moo xam jakarta la képp kuy dugg si rek dañ lay compter euh, loolu bi ñu ko bi ñu ko defee ñu ngi ko def diggante ajjuma ji jiitu màggal gi def ko ci gaaw bi def ko ci dimanche ji def ko ci altine ji ba wàllu onze heures nga xam ne jàpp nañ di waxtu woowu ñu war a dugg si ñëpp euh, dugg si nañu nga xam ne kon même defuñ ko sax une semaine à l'avance gis nañ ñi nga xam ne dugg nañu Touba ci dig-digal boobu man na cinq millions huit cent soixante quinze mille yoo xam ne day tegal juróom millions yu teg juróom da naan juróom benn million yu manqué tuuti waaw waaw daanaka jege na ko waaw daanaka juróom benn mm-hmm. million la euh, loolu ñu jël ko méngale ko ak màggal gi dama tolloon euh, juróom-ñetti at ci ginnaaw ñu gis ne téeméer bu nekk yokk na ñeen fukk ak ñaar 42 pour cent de taux d'augmentation ci juróom-ñetti at loolu di ñëw di firndeel taux de croissance bi am Touba ndax Touba rek mooy dëkk bi nga xamante ne bii boo ñëwee di jël croissance bi daanaka jege na 20 pour cent ci ni nga xam noonu lay yokkoo par par at hmm. nit ñi li nga xam noonu lay dikki di dëkk si croissance démographique bi donc loolu di mbir moo xam ne mbir mu mbir mu yéeme la nga xam ne màggal gi eh, ren jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar te jaadu na ci wàllu ndox mi ci wàllu assenissement bi ci climat social bi nga xam ne mi ngi nekk ci rew mi ak coow yi nga xam ne moo fi moo fi xaw yëngutu yeeg yu mel noonu euh, nit ñi mabbu ñëpp wut si Touba loolu day mbir moo xam ne mbir mu yéeme nga xam ne day mel ni Sëñ Touba ci ci jafe-jafe ci lay euh, ci lay wane boppam ci lay wane boppam loolu defuñ ko ngir di ko puukare woo déedéet passé nañu foofu ndax ndax ndax Sëñ Touba doone titre Sëñ Touba doone titre boo ko amee boo jëmee titre da nga ñàkk xorom ndax mënoo am titre bopp sëñ bi waaye dañoo am Euh, obligation dañoo am warteefu xam li dugg Tuubaa nu mu toll ba ñu mën a xayma lañ leen fay indil ci ay jumtukaay naka la war a day buñ ko xamul dañuy kon di dem ay jafe-jafe bu ñëwee Tuubaa la fay dugg ci màggal jege na juróom benn million ngi nit kon dañuy taxaw wax état Sénégal ne ko am na benn bis am na ay bis goo xam ne juróom benn million ngi dana ñëw Tuubaa kon lépp loo fiy def na ko natt ci juróom benn million nit wala nga xam ne boo ko deful ñëpp danañ am problème ñun loolu mooy suñu devoir loolu mooy suñu warugar lii lañu ko defee mais ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal bu ñu xamul ñu fi dugg nu ñu toll ñun suñu wàllu bopp bu ñu xamul ñu fi dugg nu ñu toll yëfi day gën di manqué di dem ndax lépp loo xam ne xaymaal nga ko Touba boo toogee diir bu gàtt Touba da koy weesu. te jamono moo am foo xam ne fa la fa la toll euh, tollatuñ ci di di di làmbatu ak ak ak dox doxinu gumba déedéet loolu jamono da ko weesu ndax science ci bopp moo ñu indil ay jumtukaay yoo xam ne mën nañoo xam lii dugg si Tuubaa ñaata lañu xam aussi ñooñu lan lañu war a aajowoo ci am ndox lan lañu war a aajowoo ci assainissement lan war a aajowoo ci wàllu lekk lu ñu war a aajowoo ci kaaraange lu ñu war a aajowoo ci wàllu santé mais loolu boo amul xayma yi doo ko mën a génne. kon xayma boobu defuñ ko ngir leeral nit ñi waxoon ne màggal gi euh, ren li ci teew ci doomu aadama daa bëri xam nga daa am ñoo xam ne xamuñu histoire am na ñoo xam ne jàpp nañu Sénégal démb la tàmbali dafa am dafa am ñoo xam ne parce que amuñu amuñu culture ubbi ko wuñu xamuñu lu bari malheureusement c'est comme ça loolu mënoo dara. ba ñoom lépp loo xam ne dikk na rek dañ koy méngale ak tey mais ñu lu ñuy def weesu suñu tey nee daal fukki at ak ñaar ci ginnaaw def nañ xaye mel nii booba kenn waxu ci benn baat loolu moo lay xamal seen manque de culture bi nga xam ne ñoom moom la ñu nekk te ñu war a dem jàng ñu ubbi seen bopp yi xam ne nit ñi am na niveau boo xam ne agg nañ ba am ñoo xam ne dépassé nañu ko mënul nekk di liggéeyal Serigne Touba di am yeneen considération xam ñaa ngi koy xool doo ko sax bàyyi xel parce que loolu dëdul dara loolu dëdul dara kon ku ku jàpp ne am na leen tax ñu koy def kooku mooy ko xam da nga di 2011 la moo tax ñu koy def li ñuy def dañ ko teg ci ci xam-xam lañ ko teg teg ko ci une base scientifique bu leer nañ ñi ma wax la liñ ci jublu lan lañ ci jublu moo di ne wax ñu ngi ko seqal ne leen lii mënut a ñàkk Tuubaa lii moo tax ñu koy def buñ defoon xayma yi 2011 màggal du nekk jour férié. xayma ah, yi moo indi jour férié bi. moo ko indi ci lu wér-wér man maa la wax. moo ko indi parce que xayma yi ci man la déparé. bañ ko def 2011 avant loolu at mu yàlla sàkk ay nit ñooy dem ci rajo yi dëkk ci suñ nopp yi màggal yàq la. ay nit ñoo ko daan wax ci rajo yi man naan la diw ak diw ak année daan ci rajo yi di ko wax. naa daa bari accident xar yiñ ci rey bëy yiñ ci rey nag yiñ ci rey. liñ ciy dépensé yàq la nangam ak nangam te booba parce que ñooñu gis nañ rek ne ñi ngi ñi ngi lewatal ay gàtt gis nañ ne nit ñaa ngi dépensé mais xam loolu mooy doxal économie loolu moo ñàkk xam-xam gi ma la wax nit mënoo nekk spécialiste ci lépp wàllu koom day xam-xamu boppam ay nit di ko jàng ba nekk ci ay docteur comme ay nit ni ñuy jàng ci wàllu wér yaram ba nekk docteur comme ay nit ni ñuy jàng ci wàllu théologie ba nekk docteur ci wàllu islam kenn ku nekk nag bàyyee ko ak la mu xam boo bañ am problème ñun li ñu ci xam bu leer nañ lañ ko teg te xam-xam yooyu yëpp nag lañuy boole ka nga xam ne moo dégg diine dañ koy bàyyee diine muy waxtaan ci diine ka nga xam ne xam-xam màcc na ci wàllu docteur professeur Lamine Gueye nekkoon recteur université nekkoon recteur université Bambey nekkoon recteur université Saint-Louis di taalibe sëriñ bi far sax di taalibe sëriñ Mountakha ci boppam kenn gënu ko xariñ ci wàllu kër docteur wérgu yaram ñu jël ko jox ko unité d'alerte ne ko saytu ñu wérgu yaram màggal gi noonu lañ jëlee yeneen docteur yoo xam ne seen xam-xam dafa ci wàllu koom ñu saytu leen ñu màggal gi nii la ñuy waaye boo bëggee na yow dañ man xam naa lépp loolu da ngay juum man ngaa xam lii waaye nag bàyyil sa moroom xam leneen te la ma xam boo ko ci dëkkee rek da ngay indi jaxase dangay ngay da ngay indi problème kon pour ci sa question li ñu def am na fu ñu ko teg fu ñu ko teg mooy lan dañoo soxla xayma màggal gi nu mu toll ci wàllu zahir ngir ñu man koo waajal ba xam nañ ci war a indi naka lay toll ñenaan léegi bu ñu defatoon xayma yi 2011 màggal du nekk jour yi ba ñu defee xayma en 2011 ci la nit gëjët taxaw ci rajo wala gi télévision ne magal Touba yàqum koom la déggatuñu ko ci la état Sénégal xam ne jouru màggal Touba gi dana ko indil koom moo xamante ne bii bu ko defee jour férié amul loo xam lu mu ci perte la ndax bu ko defal jour férié kenn du liggéey mi ngi ne ñaan permission dem te màggal gi ci boppam bés bi lim ci récupéré ci ay taxes kenn xamul nu mu toll taxe plus de quarante milliards de dañ ko ah loolu ci Magal Touba Arelane bi bés boo xam ne férié la ba pare état bi di ci récolté. lu toll ah, man man booy déglu samay discours euh, du may wax ne du may ci ne lii fii rek la am xam nga loolu daa wóorul adduna dafa xaw a yaatu wax naa léegi ne kenn xamul dara man jàpp naa ne lu lu néew li nga xam bëriwul moo tax même su may wax yu mel noonu sax même su ma tëj ay wax dama naan ci li ma xam ndax keneen mën naa xam leneen. donc loolu mooy ak maandute lu dëgg donc moo tax yooyu moom duma ci bëgg di du ci bëgg dugg mais li wër moo di ne màggal gi bu ñu defutoon loola kenn du ko def jour yi parce que même bi nga def loi bi ci motif yi nga xamante ne bii moom la ñu sukkandiku ba indi loi bi loolu lépp lañ ko ci indiwaat jour bi nga xam ne ñu ngi koy voté à l'Assemblée nationale euh, ay député dañu maroon doon woo di ma laaj ay argument pour bu ñuy développé ak di wax naka ñoom lañ war a lañ war a waxtaane nga xam ne étude boobu moom laa leen doon jox di ko di di leen ko résumel ba ñoom buñ demee jël parole taxaw ci taxaw ci assemblée nationale dinañ xam ñan argument lañ indi évidemment yooyu ay député ay murid lañu suñu ay mbokk murid lañu maa ngi fàttali ku mel ne Aïda Mbodj ku ci ku ci sonnoon la wana ma ay yoonu yoonu yoon kilifa moo ko waxoon wol Cheikh Abdou ngeen waxtaan ci daal nekk na biir assemblée national di woote di laaj di argumenté di ci dem donc te même boobu sax moom bokkul ci pouvoir bi nga xam ne kon nekkutoon aussi loi boo xam ne la pouvoir ak opposition ñëpp àndoon maase euh, voté ko kon yooyu mooy mooy li am solo donc loolu di fierté boo xamante ne bii liggéeyu sëñ Bas la ci màggal gi euh, kon ñëpp aussi war ko cee sant gis nga nag combat boobu moom la ñuy continuer parce que dafa am dafa am euh, dafa am loo xam ne tey waruñu ko taxaw laaj te teguñu ko fenn. tey amuñu sañ-sañu ne dañ defar assainissement Touba rek ne Thiel la amuñu sañ-sañu ne nañ jokk ndoxum Touba ne Thiel la da nga koy argumenté ci xam-xam nga koy teg ndax ñi ngay waxal itam ay borom xam-xam ci ay programme lañuy dox kon boo leen di wax ci ak nit nga mën a waxee ak ñoom ci nga leen mën a convaincre mais tey jii bépp bailleur ak fu ma nekk ci monde bi même état Sénégal loolu ñu nekkat kat fii juróom benn million nit dafay daje kon nangam ji mënu fee ñàkk. fa dañ koy signé xam ne lii mëntu ñàkk kon loolu ci boobu esprit lañu koy defee kon ñi nga xamante am nañ yeneen ne xalaat su ma sañoon ñu bàyyi yooyu ñu xam ne màggal Tuuba dépassé na considération yi nga xam ne ñoom ci foofu la ñu toll yooyu ay tolluwaay la fii at kenn du fa toll daaw tolluñ fa woon ren ña nga fa fii at kenn du fa toll te lii depuis sëriñ bi ba nga ni ñu ngi ci te day continuer dem moo ëpp lépp ñun ñëpp moo ñu ëpp ñun ñëpp dañ ci nekk bu jógee fi suñu njaboot ak sunuy sët ak continuer di ci nekk kon nañ ko nañ ko préserver xam ne xam ne ñi ciy liggéey xam nañu li ñuy def lu mu doon moo tax ñuy sonn guddi ak bëccëg sëñ bi ñu gis ne màggal gi dafa bëri ay dimension dimension sociale dimension religieuse ak yeneen yeneen dimension ñu gis ne dimension sociale bi màggal Tuubaa événement la boo xamante nii euh, tey man ngaa gis ñaar ñoo xamante nii dañoo bokk ci ay kuréel duñ tuddante sax mën a dajee Touba ci kanam sëriñ bi te ñu fa dajee daañu daañu waxtaan nga gis tamit ñoo xamante ni euh, dañoo dañoo nekk ci ci ci diine gi peut-être bokkuñu ay gis-gis ñu mën a daje Touba ci ay jotaay loolu naka ngeen ko liggéeyee ba ba réussir ko ci màggal Touba gi. waa xam nga xam nga dimension màggal gi dafa dafa bari mm-hmm. euh, ñu ngi wax léegi dimension spirituelle bi. Mm-hmm. mooy jaamu yàlla gi. loolu benn ruu day day day dugg foofu. Mhm. kon te dimension man jàpp naa ne mooy dimension bi cëpp doole. Mhm. am na dimension festif mooy dimension bernde rey nag yeeg yu mel noonu dënale bi boobu si dimension boobu ci am solo la ndax sëñ bi du ko cee defoon tudd ko tudd sax ne nag ci ginaar ba ci gileem ci ni ko mag ñi nettalee. kon loolu dimension bu ci bu ci am solo la mu dikk ci dimension sociale boobu nga wax mais boobu dañ koy def dañ koy def benn étude d'impact étude d'impact boobu 2011 parce que nit ngi dañuy dañuy fàtte mais defuñu rek impact ci wàllu ci wàllu koom déedéet dañuy def impact ci wàllu ci wàllu koom def impact mooy jeexit def jeexit ci wàllu euh, social def jeexit ci wàllu diine jeexit ci wàllu diine boobu sëñ Sam Bousso nañ ko dénkoon moo ko defoon même téere ba moom ren euh, imprimé na ko ba disponible encore ci marché bi pour ñi nga xam ne aajo woon nañu ko euh, li nga xam ne mooy euh, mooy dimension boobu gis nañ ne am na ñoo xamante ne bi juboo nañ Touba am na ñoo xam ne juboo nañ fa ndax dañu bokk lépp duñu tuddante ñëw daje fa ñu defal leen benn tente boo xam ne fa la ñëpp di di di jëfandikoo ñu daje ñu daje fa ndékki daje fa añ daje fa reer ànd ak seen nawle dañuy xam ne fii ñàkk nuyoo amu fi place foofu la yëfe déparé pour wax la importance bi nga xam ne am na ko bu doon bu bu bu doon ñooñu fa juboo dong benn yoon boobu rek la day mel loolu doy na sëkk ngir ñu defoon ko euh, ñu gis ne xeet yi nga xam ne ñooy daje euh, muy wolof muy tukulóor muy séeréer muy njaago muy bépp xeet ki Sénégal ñëpp fay daje te buñ fa dajee itam kenn du xam kii ban xeet la bokk kenn du en tout cas kenn du wan sa morom ban xeet nga bokk ñëpp rek dañuy di rek ngir jëmmi sëriñ bi sant la ko yàlla ñu gis ne ci wàllu politique képp koo xam ne bokk nga ci parti politique ak bu mën a doon danañ fa daje te bu ñu fa dayee itam kenn du indi sa couleur politique ci màggal gi kenn ku nekk da ngay dikk sant la sëñ bi yàlla nga xam ne kon day mel ne bu ñu bu ñu xasee dugg si euh, li nga xam ne moo ñu wutale muy différence yi nga xam ne am na suñu diggante yooyu dafay euh, dafay jeex loolu nag mooy mooy boole xol yi loolu nag moo ñuy jubale moo indi li ñu woowee cohésion sociale loolu aussi mooy indi ak dal ci biir réew mi loolu moo tax ba Sénégal am na loolu mënu fee xew ndax fi ñu dajee day bari te li ñuy bokk te mënuñu koo seddoo dafa bari moo tax même bu amee ak réeroo bu mu doxee tuuti rek dana am lu ñu boole loo xamante ne bii réeroo ga faw mu jeex wala lañ bokk duñ ko mën a rafetal kon màggal gi boobu taxawaay la am ci la am ci réew mi nga xam ne kon bari na ay réew ay réew yoo xam tey am nañ ay jafe-jafe muñ amoon bis bu mel ne bisu màggal Tuubaa gii foo naa jafe-jafe dana jeex même wute yi nga xam ne dañ koy am sax ci diine ci euh, ci mazhab yi euh, ak ci ak yenn gis-gis yi euh, association islamique yi dañuy ñëw confrérie yi nga xam ne bokk ci nañu dikk buñ dikkee ci conférence bi kenn ko dañ lay jox kàddu nga exprimer mu wax la nga xam ne mooy sa mooy sa pas-pas la nga xam ne mooy sa gëm-gëm la nga xam ne mooy sa mooy sa gis-gis loolu di tolérance boo xam ne aussi dafay indi euh, aw day wane aw yoon woo xam ne euh, mooy li nga xam ne ñun noonu la ñu war a dëkki kenn ku nekk war ngaa mën a am sa gis-gis te du yàq dara ci sunu jëflante nañ ko war a rafetale te ku dem gësuñ mun taxaa ñi nga xam tey jii moo fi nekkal Cheikh seriñ Touba ak ña nga xam ne ñoom ñoo ko jiitu woon boo dikkee rek danga nga xamante ne bii la la euh, na nga mel ak la nga gëm ak la nga indiaale euh, bu dee pas-pas bu sel di di di di lislaam rek loolu moom dañ la koy nangul kon cohésion sociale bi nga xam ne màggal dana ko ci réew mi loolu amul njëg amul prix loolu rek jar na sax ñu defoon ko jour férié bis bis boo xam ne Sénégal yëpp. dañuy maase daje te étude bi gën na ne jouru màggal daanaka boo jëlee Sénégal 27 pour cent réew mi dañuy daje Touba te 27 pour cent yooyu mooy 27 pour cent kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi kon foofu foog naa ne jafe-jafe bu a doon mën na faa amee mën na faa amee saafara am na yeneen dimension dimension diplomatique gis nga ñi nga xam ne ñooy ñooy dikk jóge ci biti réew. li ñu bare waaye tamit gis nga corps diplomatique bi gis nga ren la fa daje daanaka benn ambassadeur bu rek Sénégal desut réew yëpp ñoo ñoo dikk présenté wu. loolu aussi di loo xam ne dafay dafa yokku euh, maanaam Sénégal ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci bitti dafay dafay defar daram ndax ñoom bu ñu dikkee ay émissaires lañu buñ delloo dañu nettali. ne ah Sénégal léegi gis nañ fa loo xam nangam ak nangam am na boroom xam-xam yu rëy ñii nga ngi jógee Californie ñii ñoo ngi jógee Abu Dhabi ñii fenn fu ne ci àdduna si lañ jógee ku ci ne bi ngay nuyu suñ muntaxaa da ngaa fóon loxoom ku ci ne ñaari loxo nga ko jox ku ci ne jox nga ko respect boo xam ne boo delloo boo fonk du nit ku ñuul da fonk nit ku ñuul boo fonk du boo xamante Sénégal am na ñoo am na ñoo ñu ci bari keroog lañ gëj njëkk a teg seen tànk ci biir réew mi te yooyu buñ delloo tey ay junniy nit ñoo leen di topp am na ñoo xam ne ay nit la am ci ay followers. ñu di leen topp ci réseaux sociaux yi. commencé nañoo bind ki sëñ Touba di leeral di bind ki Sénégal di leeral. kon loolu aussi amul prix même ci suñu deru réew. nga xam ne kon aussi Touba loolu la jëriñ réew mi ci ci fànn googu. sëñ bi ba léegi eh, ni ko waxee noonu ci eh, tarixa yi nekk ci réew mi. ñoom it daa mel ni amoon nañ taxawaay bu am solo ci ci ci ci màggal gi nga xam ne tarixa bu nekk ñëw nañ laatay màggal gi ànd ak sëriñ bi màggal gi ba ba ba ni màggal gi àggee. délégation yi jege téeméer délégation yoo xam ne moo jógee ci kër diine kër diine nekk téeméer boo ci boole association islamique. maanaam genn kër gu mag desul jóge nañ sax ba Mauritanie dikk teew si. ñi nga xam ne ñoom lañ noonu lañ tolloon ci ay ci ay nit aussi jege nañ ñeenti téeméer. ñoom boo xoolee ñoom ñoo daloon ci kër Sëñ Tuubaa yi ñoom aussi bu ci nekk am na jataay bu yaatu ak Cheikh Mamadou Mountakha sëñ Bass itam màggal gi ñoom ñëpp dem na saafonte ak ñoom waxtaan ak ñoom sant leen gërëm leen ndax délégation yëpp dañuy dañuy daje ci kër Sëñ Tuubaa dañuy daje saal bi ci saal mag bi dañuy ñu def waxtaan Daaru Manaan aussi dañuy daje ca salle de conférence ba ñu def ñu def waxtaan parce que seen taxawaay dafa rafet te dañoo bokk ci gan yi nga xam ne ci gan ñi gënal sëriñ bi lañu te ni ñuy dikkee boo boo leen dee gis ñu ñu ñu jël kaddu euh, ci conférence bi raw di def bu ñu waxee rek da xam ne ñii yéene ji nga xam ne am nañ ko ci ci bis bi da dañ ñoom ñëpp dañ ko jàppee seen seen yëfi bopp nga xam ne kon day day mel ni sax même buñ ko tijj woon cent pour cent wala ne képp ku bëgg a dikk dikkal la nga xam ne moo fi dikk ci ay délégation duñ ko duñ ko attan waaye loolu dañuy yokk rek ndànk-ndànk incha allah lu lu dal di gën a yokk délégation yi di di gën di bari ndax ñëpp bëgg ak lañ foo xamante ne bii màggal gi ren ma màggal gi léegi kenn bëggatu ko kenn bëggatu koo wuute. màggal gi kenn bëggatu ko wuute ba tax na ay doomu aadama yu takkoo takku ñoom ñooy ñëw ci dëkk bu sell bi Touba ngir teewee bésu 18 safar googule ñu am mbégte nag euh, di dalal ci euh, plateau bi Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma mi jiite commission culture ak communication bu Grand Magal euh, bu Touba ci jotaay bi nga xam ne ñu koy amal di def xayma ci màggalu Touba gi ñëw génn rek Serigne bi mel ni màggal gi li ñu ko waxee sànq rek lim bi ñëw bëri na waaye des fois ñu nemmeeku ne da am na dina am ay accident ba des fois am ñoo xam ne dañ dañ ciy dañ ciy loru sëñ bi ren donte accident yi mën nañ ne wàññeeku na par rapport ak at weesu lan nga jàpp ne suñ ko defee accident yi dana gën a mën a wàcc nit ñi di ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ci màggal gi. waaw naa ne loolu ñu ngi ci aw ñu ngi ci aw yoon ci wàllu sécurité bi ndax ren boo boo seetloo ñun dañuy teel a màggali waaye am na ñoo xam ne ñëw nañu mais dañuy wax ne ñu force de l'ordre yi dañ doon nekk ci yoon wi di obligé oto yi ñu daw ndànk loolu jàpp naa ne ci li wàññi accident yi la bokk euh, beneen cause aussi accident yi. donc loolu mooy vitesse yi. beneen cause bi mooy màggal bu bu ñëwee oto yëpp ay génnandoo ku denc sa oto sax nga ne peut-être at mépp dawuloo ko màggal da nga koy bëgg a génne. waaw loolu aussi foog naa ne loolu nag bu fekkee da nga koo génne nga ko lu yàgg. wala xañ na oto bi aussi musta gé daawul génn dëkk ba nga xam ne fa la dëkk nga bëgg a xëy dawal ko deux cent trois cent kilomètres. man mm-hmm. naa mën naa indi ay jikko. ji jikko yi day daal di feeñ loolu aussi foog naa dina am loo xam ne dina ko yokk ci accident yi kon oto yi gën a baax jàpp naan dana wàññi accident yi ñu gën a fonk visite technique yi dina wàññi accident yi ñu gën a fonk aussi pneu yi nga ne kenn ku nekk balaa si oto ñëw ci màggal nga def ko révision ba mu leer na oto bi euh, mucc na ayib ngir man a def deux cent trois cent kilomètres dem Touba aller retour te nga euh, daw ndànk kon jàpp naan mesure yi bu ñu ko defee boole ci nag boole ci nag ak itam euh, dawalkat yi di dallu dawalkat yi di dallu parce que itam boo bëggee def Dakar Touba aller retour ñëw dikk ñëw dikk ñëw dikk nelawoo noppaluwoo te nit du machine da dem ba boo moytuwut mën ngaa nelaw ci yoon yi wala nga sonn wala nga mm, ma ngi noonu su ko si day indi day indi yeneen jafe-jafe kon loolu sur nombre bi itam nag moom itam day day indi ay jafe-jafe ah ñëpp bëgg a ñëw ñëpp bëgg a ñëwandoo waaye loolu surnom boobu li ko mën a wàññi rek mooy oto yu baax yi gën a bari ndax day mel ne auto yi doyuñu ngir transporter nombre bi nga xam ne mooy dikk Touba kon day mel ne bis boobu faaw nit ñi def surnombre te bis bi nekkul bis boo xam ne xaj na force de l'ordre yi dañuy dañuy mën a téye oto yi di leen contrôler parce que loolu aussi boo ko defee daan kenn du agsi donc moo tax aussi nit ñi day am loolu ñoom ñoo ko war a xam. kon nag euh, nañu nañu daw ndànk nañ fexe ba oto yi baax chauffeur nañu noppalu nañ moytu aussi surcharge bi ci biir oto yi lii buñ ko defee jàpp naa ne sunu borom mën nañoo mën nañoo suturaal waaye ren moom taxaw bi nga xam ne takk deri taxaw nañ ko ci yoon wi doon wax nit ñi ñuy def ndànk dégg naa noonu lañ defoon loolu tax na ba accident yi wàññeeku na donte nag am nañu ci loru ñu di leen ñaanal yàlla tey tey jàlli seen i bokk sëñ bi wax nga sànq nee nga lim bi ñëw Touba bëri nañ bëriwaay boo xam ne oto yi sax du leen doy gis nañ ren train bi ñëwaat na Touba ginnaaw ay at yoo xamante nii toogoon na ko ñëwut nga jàppoon ne suñ doole woon train yi loolu dana ko mën a saafara. dama nekk solution mais ren train bi 4000 personnes la ñu indi xam nga loolu dara 4000 ci ci presque 6 millions du dara <laughs> moom la indi waaye loolu ab tàmbali la kon tey jii train yooyu bu yokkoo parce que parce que dañ dañ lay wax ne la. tukkib saxaar foog naa ne mook avion mu mooy sécurité mm-hmm. kon te jii bu train bi yokk woon mën a indi lu bare bare bari ban fexe ba mën a indi genn wàll nit ñi accident yi dana wàññi ku baax mais ñoom def nañ effort parce que ñu bari jàpp nañ train bi du dikk fexe nañ ba dawal ko ba mu dikk Touba te bi mu jàllee maa ngi maa ngi maa ngi leen gis ñu naan nag fi ne amatuñ droit taxaw kon day mel ne ci njabar googu gi nekkoon ak effort yi nga xam ne def nañ ko bëgg train bi day mel loolu dañ ko bëgg a continuer. waaw ni ni ni ni ma dégg ñu wax ko day mel ne ñoom loolu loolu mooy li ñu bëgg te xam train bi day day symbole. ndax train bi jàppal ne ci liggéey jumaay Touba la bokk ndax tronçon bi nga xam ne mooy Diourbel Touba loolu day daa bokk ci bilan daa bokk ci bilan liggéey jumaa ji Mm. tey ji bu ñuy xayma xaalis bi ñàkk ci jumaa ji tronçon boobu cham cham Moustapha def ko dañ ko jar a boole mm-hmm. ndax bu amutoon jumaa ji du taxaw mm-hmm. ndax dafa nekkoon condition ci li liggéey jumaa ji ci ay matériaux mën a agsi mm-hmm. kon loolu aussi da daa am benn symbole boo xam ne am na dafa amoon dafa nekkoon ndamul yoon wi ba ba ca booba sëñ Modou da caa dugg ànd ak euh, Abdallah doomu Cheikh Sidiya ak yeneen kilifa ak gouverneur général ñoom ñëpp tey boobu yéeki duggoon ñëw fu gaar bu mu àgg taxaw kilifa yi dugg bañ ak si Touba ñu wàcc ci gaar bi dox wutal Daaru Xudoos loolu dafa nekkoon ndamul yoonu murit kon nag loolu waruñoo seetaan aussi muy muy taxaw loolu aussi di wane euh, ni nga xam ne aussi yoon yi noonu la tàmm liggéeyee nga xam ne maam gàllankoor buñ ko bëgg a teg rek dana jóg ci ak xereñam ak ci pas-pasam teggi ko ba gàllankoor googu moom bu soobee yàlla day féete moo tax biñ ko nee train mënut a ñàkk ndax bu train amut matériel bii dikk ci jumaa gi duñu am lu ko indi mu ne ay ca bisimilah nit ñaa ngi fi te pastu daa ngi fi kilifa gu nekk joxe mbooloo ñu yàlla di tabax ñu yàlla defar raay bi matériel bi dikk ñu commencé jumaa ji kon dafa dafa nekk lu am solo ci màggal gi train bi wërta wërta yam ci màggal gi war nañoo fexe ba aussi aji muy jot ñi nga xam ne bëgg nañoo dikk sax ñu wutal leen train boo xam ne leen indi Touba te te te foog naa bis bu bis bu meleen dama war a mel gis naa ko rafet na trop am na première classe am na lépp climatisé rek lépp am wifi loolu foog naa ne nit ñi buñ ko xamee dana bari ñoo xam danañ bay seen oto jël train bi dikk julli juma wàññeekuwaat te daanaka du am du am benn ndax dafa lay noppal fi mu doon boo tukkee boo tukkee bitim réew même fooy dem train ngay jël ndax moo gën a gaaw sëñ bi ñu mu waxtaanee lu jëm ci wàllum euh, taw bi ak inondation yi ndax gis nañ ne màggal Tuubaa ren wala at yi sax la ñuy wax euh, dafay tombeek nawet mu mel ne ndox mi ren bëri na lool bëri na ay wax yoo xam ne ñu ngi doon jóg ba nga xamante ni sax am na taxawaay boo xam ne état bu Sénégal euh, ñu ngi koy taxaw ci dëkk bi keroog Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Khadir mi jiite comité d'organisation màggal gi mu koy leeral muy 45 milliards yi nga xamante ni état bu Sénégal jot nañ ko def ci Touba mu jëm ci wàllum assainissement bi ci wàllum assainissement la ñuy wax mu jëm ci Touba fan lañ ci tollu ak lan la ci état bi war a def ngir mën a saafara la jafe-jafe assainissement Touba. waaw xam nga assainissement Touba dafa dafay dafay lu bari ndax bekkoor daa amoon ci réew mi à partir de 1970 ba 2000 Sénégal li mu taw bëriwul mooy at yi nga xam ne day day dem ba wax set bët du set bi am na fi. ay 97 96 yooyu rek ñun ñëpp ñu ngi ko fàttaliku. day dem ba wax set du taw nga xam ne ñëpp dañuy jaaxle euh, diggante boobu àll bi metti yëf yi tar mu am li ñuy woy exode rural parce que baykat bu nekkee ci àll bi te bayatut kon amatul lu muy dunde def fa dara kon jóge ci àll bi toxu ci taax yi ngir man fa yaxantu day daal yëpp intérêt ci moom diggante boobu ñu bari ci lañu ci lañ ci lañu tuxoo ñëw ñëw dëkk si Touba diggante boobu itam boo seetloo ci fin anne quatre jàpp année quatre vingt dix yi ñu bare bare dañoo génn réew mi dem Italie dem France France yàgg nañ faa dem mais surtout Italie année yooyu la xewoon ndax boobu aussi visa yi xawoon naa yomb waaye ku génn rek la nga njëkk a def mooy tabax kër Touba tuxal fa tuxal sa njaboot loolu tax ba dëkk bi fees. comme bi ñu ñëw nag fekk na ñu nekk ci bekkoor doo tit fu taa doo tiit fu taawul nit ñi fu gën a jege rek mbaa fu gën a jàppandi rek ñu def fa kër daal dafay dëkk fekkital foofa da caa bari barab yoo xam ne ay barabi ndox la biñ demee ba cycle sécheresse bi jeex ba taw bi commencé waat à partir de des années deux mille taw bi commencé bari jafe-jafe yi daal di commencé juddu kon la ko jiitu Touba soxla wutoon assainissement ci niñ ko gisee woon nekkutoon en tout cas jàmputoon dafa amoon ci assainissement sëñ Saliou moo ko fa defoon bi jafe-jafe commencé juddu président Abdoulaye Wade commencé assainissement Touba ba liggéey ci loo xam ne war naa toll juróom-ñeenti milliards di tax ma ne mën na juróom-ñeenti milliards mooy président ak Sall ñëw bor boobu la fekk ñu amel ko Enan Chine mu liggéey ko te fayaguñ ko. nga xam ne booba ca lañ ko fay continuer liggéey bi booba nag assainissement bi de daal di jàmp ndax ndox mi dellusiwaat na nit ñi dëkk nañ ci barab bi taw yi assainissement léegi mënatu la ñàkk waaye fekk na Tuubaa la fa dëkk kenn xamul nu mu toll wax naa léegi aussi dëkk bi ni muy yokkoo kenn xamul lu mu toll magal gos yi kenn xamul nu mu toll kon jafe-jafe daal di commencé ñu commencé investissement yi ca loolu lañ wax ne def nañ ba def fa quarante cinq milliards loolu boo gisee mooy bassin ya fa nekk muy la nekk Kër Ñang la nekk Kabbu la nekk Dar Rahman mooy mooy station pompage yi nga xam ne ma nga fa moom itam la fa nekk ci station pompage bari na donc loolu yooyu mooy investissement nga xam ne def nañ ko fa am na ci am na ci bus yoo xam ne dañ ko suul ci suuf muy euh, tuyau yi deux mètres sur trois la nit da ciy dox di dem donc loolu aussi manque fa ci investissement yi la la bokk bari na foo xam ne dara taa ndox tey jii boo demee doo doo fekk ndox Touba dañaa def plan Orsec bu tawee ñaari yoon ñett ren amul plan Orsec daaw jéeg rek plan Orsec am na le ministre de l'Intérieur dikk bi mu dikkee ñu dirigence ñu def ñu ñu débloqué waat lu mat vingt trois milliards loolu mooy li ñu mujj def commencé waat liggéey yi am na ci am na ci tuyau yoo xam ne mooy tuyau bi bi jëm Daaru Rahman nga xam ne dafa dafa longe tali bi booba lañ ko fa dal def yokkaat capacité euh, bassin yi créé waat kër kër kàbbu mais aussi yokkaat yokkaat capacité de de pompage bi nga xam ndox mi ni muy dikkee ni muy génn dañ ko daal doublé kon ay liggéey am na fa ci fànn googu liggéey bu dee quarante cinq milliards Euh, ñu def plan directeur de l' assainissement maanaam xayma assainissement dëkk bi lan la aajowoo loolu jàpp na cent soixante dix jàpp deux cent milliards mooy la dëkk ba aajowoo ngir assainissement bu baax loolu nag bu ñu fa defee quarante cinq ak ña koy def lu ñu jàmbaare jàmbaare góor góorlu góor góorlu mun a feeñ ndax ndax vingt cinq pour cent la. vingt cinq pour cent la vingt cinq pour cent mi ngi mel ne tey jii sa salaire ku ci daggoon soixante quinze pour cent da nga xam ne fayuñu la. <laughs> loolu mm. dama la jox rek misaal moo xam ne mën nga comprendre rapidement. Mm-hmm. kon loolu mooy jafe bi nga xam ne mooy bi am Touba la nga xam ne moom la dëkk ba aajowoo ci assainissement moo bari te loolu tànk defuñu ko ba mu weesu xaaj jàpp nag di yéeg jëm cent pour cent na mu war a feeñe mënul nee feeñe loolu nag li koy saafara mooy ñu baral jéego yi yokk lañ fay def loolu ma ñaari solution yi donc baral jéego yi moo di ne ñu gën koo gaawal mais aussi nag yokk volume d'investissement yi fu ñu def sept milliards dix milliards vingt milliards tey ñu ne woon maa jël ñetti at at mu nañu jël cinquante milliards def ci dëkk ba mu ñu ko defee ñetti problème bi jeex loolu mooy importance su xayma yi ñuy def parce que bu ñu nee 6 dana fi dina ñëw Touba kon dañuy xam ne assi assainir dëkk bi mënut a ñàkk kon ñaari am na solution xam nañ fi ñu jëm xam nañ ni ñu war a def xam nañ ni mu toll solution bi mooy lañ fa war a def nañu ko jël ñu def ko fa ci nu mu gën a gaawe ak nu mu gën a baree pour problème bi jeex ñëpp noppalu kon day mel ne bu ñu war a def ñeent. benn la ñu defagul kon dañu leen sant di leen gërëm mais nag di leen wax ne solution am na ndax xam nañ ni xam nañ ñi war def nu mu tollu xam nañ ñaataa ko war a def kon solution bi ñaar rek la mooy jéego yi nañ ko nañ ko baral li ñuy def itam nag di ko defandoo muy volume d'investissement yi aussi na gën a takku nga xam ne kon lu ñu waroon def ci juróomi at. mën nañu lijjanti ba def ko ci benn at ñaare at gën ngaa bari ñetti at bu ko defee diir bu gàtt problème boobu dana jeex nit ñi kenn dutu jàmbat ñëpp danañ ñëpp danañ nekk ci mbégte ñu nekk ci ndox mi ñëpp aussi danañ ca danañ ci génn ndax ren ji ONAS góor nañu góorgóorlu bi moo di ne même organiser nañ nit ñi ci quartier yi tubaab dafa am ñoo xam ne aussi ay association lañu nga xam naka jëkk dañ daan yëngu ci wàllu mbënn mi ñu jël ay moto pompe jox leen maire bi jël ay moto pompe joxe lool sax ma wàññi yëf yi nga xam ne dañ doon dugg ci koñ yi ak ci biir kër yi di pomp di di génne buñ ko pompee tur ko ci mbedd mi foofu aussi tegaat fa moto pompe yu mag ñu pompe foofa yóbbu ci réseau bi ah waa DPG yi ñoom itam jàmbaar lañu ñoom am na am na moto pompe yoo xam ne aussi indi nañ ko fa man foofu ñu nekkoon ci Touba moske kër ya fa nekk ñu mag lu dese ñaari fan. dugg nañu fa ci ay kër yoo xam ne lañ fekk ci am ndox kenn xamul nu mu toll daanaka seen i borom ñenn ngi sax dañoo yéegoon ci kaw ñenn ngi dañoo génnul seen i kër waaye dañ ko pompe ba mu jeex takk ba mu génn malheureusement bi bi magal gi ñëw fekk booba sax parewuñu ñu ne ma kat sëriñ bi fii bu ñu fi amoon juróom-ñetti fan dañ fi def liggéey liggéey boo xam liggéey bu rëy la mais loolu lépp ay jàngat lay doon ngir bu ngir bu benee ne danañu xam naka la ñu war a gën a mën a mën a taxawee mais daal problème assainissement Touba moo di commencé nañu def nañ lu bari waaye li ëpp defuwuñ ko kon nañ bari jéego yi nañ yokk lañ fay def. <laughs> sëñ bi mu mel ni euh, couverture médiatique euh, màggal Touba dafa nekk lu am solo loo xamante nii dafa intéressé média yi nga xam ne dañoo nekk Sénégal ak bitim réew yëpp ñuy ñëw di couvrir màggal gi gis nañ chaque année da ngeen ubbi benn plateforme boo xam ne ci la ñuy inscrire ngir mën a am accréditation. ren ñaata organe ngeen accrédité ci màggal gi ak ñuy couvrir màggal gi seen xayma. li nga xam ne jot nañ ko man na mille cinq cent soixante deux demandes junni ak juróomi téeméer ak juróom benn hmm. fukk ak lu topp moom lañ jot ci ay demandes. ñu bëgg a couvrir màggal gi ñu bëgg a couvrir màggal gi ñoo nag ñëpp mënuñoo dikk parce que mën ñoo jox ñëpp ne leen dikk leen waaye buñ dikkee duñ am fuñ leen dalal te loolu aussi foog naa ne amul njariñ kon dañuy def euh, ab euh, dañuy ab sélection jël ña nga xamante ne bii buñ dikkee li ñu bëgg danañu ko am te itam ñoom du nekk ci condition yoo xam ne ñu metti la ñu jël ña di leen ñekke des nag danañ mën a màggal si waaye aussi buñ dikkee ñun suñu responsabilité si ñoom du toll noona parce que aussi boo jël itam da ngay jël loo xam ne attan nga ko te te mille cinq cent demande xaw naa xaw naa jege dayoo te da ci am ñoo xam ne sax nag boo boo xoolee ba ci biir euh, daanaka duñ am droit sax ci def demande yu mel noonu parce que duñ am benn mandor ngay nekk journaliste wala benn mandor ngay nekk en tout cas bokk ci presse nga xam ne leen boo leen booleen ci presse bi waa presse bi ci boppam sax ñoom loolu du leen neex ci biir loolu ñun dañu yemale suñu yëf officiellement ci juróomi téeméer cinq cent jàpp nañ ne bu amee cinq cent journalistes mën nañoo couvrir événement bi ci anam goo xam ne anam gu matal lay doon te ñun danañ leen mën a jël def ci ñoom la nga xam ne moo ci war ak lañ aajowoo lépp dinañ dinañ jéggi nag 500 yi dañ dem ba 600 dem ba dem ba 700 loolu naka lañ koy defee ci biir 500 yooyu da ci am ñoo xam ne bu ñu dikkee duñu duñu dal ci comité d'organisation bi organes yu bari dañoo am ay njaatige biir Touba bu ñu dikkee dañuy dem ci seen njaatige dal ak ñoom kon ñoo ngi dañuy libérer ay place place yooyu ñu libéré nag ñu moom la jël nag jox ko ñeneen kon ñun danañ daloo cinq cent personnes mais ñiy accrédité dina ëpp cinq cent dana jàgg da dana mat sept cent personnes yoo xam ne ñoom la ñu accrédité jàppal ne deux cent yi duñ dal ci ñun cinq cent ci ñun lañu dal ñun ñëpp nag ñoom ñu couvrir euh, màggal gi euh, te loolu dañ cee dañ ko fonk ndax presse day partenaire ci li nga xam ne mooy li ñuy liggéey ndax dañ ne njàngalum senañ bi na tasaaroo màggal gi na tasaaroo communication bi na ci ñëpp jot loolu nag mënoo ko wax ba noppee di ginnaawal presse moo tax aussi presse bi jël ko euh, def ko un partenaire privilégié lépp lu ñu def ñu boole leen ci di waxtaan ak ñoom di saafonte ak ñoom te loolu am nañ ci yeneen xalaat yoo xam ne am nañ ko ba bu déwénee sax bëgg nañoo rencontrer même les patrons de presse def ñoom séminaire Euh, waxtaan ak ñoom xool yan jafe-jafe la ñuy jànkuwanteel bu ñuy bu ñu bu dikkee Touba xool yooyu aussi yan saafara lañ ci euh, lañ ci mën a indi kon dañu bëgg partenariat bi dañ koy dañ koy gën di pousser am na même ñuy proposé naa nañu wut ay maison de la presse loolu aussi foog naa ne yoon wi àgg na foo xam ne war naa maanaam ay këri boppam yoo xam ne bu màggal gee ñu nekkat journalistes yi nañ dem ñu dal ca kër gee loolu aussi parce que sëñ bu joxe ndigal rek. yenn cheikh si mën nañ ko tabaxal fu mu bëgg ak ak nu mën a toll ci ci ci étage te dëkk bi noonu lay mën a continuer di di développer wu. beneen beneen bi am ci presse bi mooy gis nga ne lépp dañ ko liggéey te amu amuñu ñoom benn contact lépp dafa jaar ci xarala yi loolu aussi nekk beneen innovation boo xam ne am na yow yaay dugg ci sa plateforme bi bind remplir waaye boo dikkee danga fekk sa lépp noppi ñu jox la ko nga dem tey ñi nga xam ne ñoo gën a ci àdduna ci wàllu organisation ak wàllu naka la ñuy gérer presse bi ña nañu def nu ko raw ñun noonu lañ doon def te loolu ñëpp gis nga aussi euh, cérémonie officielle gis nga bracelet ñu leen joxoon mu am ay QR code nga xam ne même day contenir ay information ci Touba ak ki sëñ Touba loolu lépp ay amélioration yoo xam ne def nañu ko te bu déwénee aussi danañ ko yokk bu déwénee mais mënuñu dem ba carte presse yi ñu bàyyi ko def bracelet yi ndax moo gën a moo gën a jàppandi moo gën dëppoo ak jamono te tamit ay information dañ ci nekk yoo xam ne boo ko tegee sa téléphone xam loo xam ne sax jarul ngay dem di ko laaj dem di dem def ay recherche donc daf leen noppal donc pour waxal ne la ci ci processus boobu la ñu la ñu nekk ngir di ngir di gën a taaral ngir di gën a noppal nit ñi ngir di leen gën di mettre dans de bonnes conditions hmm. donc pour aussi nga xam ne comité bi ñi ci nekk ay nit ñu xarañ lañu ñoo xam dañuy dañuy liggéey di jëfandikoo les outils les plus modernes mu nga xam moo am ci àdduna si mel ne euh, sëñ Abo yooyu moom moo koy saytu waa secrétariat ñoom ngay defal yu mel noonu waxtu bu nekk ñu ngi ne ñu ngi ne innovation yoo xamante ne bi ñëpp dañ ci dañ ci kontaan te loolu defuñ ko rek ak commission communication mboolem commission yi lañ koy lañ koy defal commission bu nekk ca nañ ca nañ koy saytoo danañ ci indi xarala goo xamante ne bii bu noppee ñëpp ci am mbégte. sëñ bi euh, mu mel ni daanaka waxtu yu mat na waaye ñu yëkkati plateau bi rek euh, benn question boo xam ne day jëm ci comité d'organisation bu Magal Touba ndax dafa am ñu jàpp ne des fois dañ dañu koy laaj ñoom dañoo jàpp ne Magal Touba rek bu ñu duggee ci safar gi lañ koy tàmbalee waajal wala bu Serigne Bass tàmbalee recevoir délégation yi lañ tàmbalee waajal euh, Magal Touba gi comité d'organisation nan lañ koy nan lañ ciy liggéeyee ak nan lañ ciy liggéey ak état bi. mais boo jëlee wàllu commission communication. ak culture. xam nga ne mënoo recevoir juróom ñaari téeméeri nit ci ñetti fan ñeenti fan loolu dafa laaj wàccaay wàccaay wàccaay wu yàgg laaj nga jël wàllu su commission culturelle nga def juróom ñett fukki waxtaan ak lu mat juróom benn conférence ak na guddeeg bëccëg nga dëkk ci plateau télévision yi ak site internet yi mënoo ko def ñetti fan ñeenti fan donc am machine la boo xam ne tey màggal lañ ba pare nit ñi bu ñu toogoo ba dallu dañuy toog def évaluation màggal gi naka lañ ko dunde yan rëq-rëq la am fan moo waroon dox te te doxut lan moo ko tee dox fekk booba commission bu nekk def na rapportam naka la ko saytoo loolu buñ ko joxee coordonnateur bi ñoom ñu saytu ko xool ko waxtaan yi nga xam ne mooy kilifa gi di njiit lii di sëñ Bas ci lañu soo ko dajale de fan ñett yu ne da nga dégg ñu ne am na réunion comité d'organisation loolu ñun rek ñoo ko yëg ndax ñun rek ñoo fay daje sous commission yëpp dikk mbooloo mépp dikk teew ñu commencé def ay réunion ak administration bi muy nguur gi boo gisee CLD bi bu ñu waree ba am ay fukki fan juróom njëkk yi ci lañu koy def buñ ca jógee ñu demaat réunion ak préfet demaat réunion ak gouverneur demaat réunion ak ministre de l'intérieur ñëwaat defar réunion tubaab évaluation ak ministre de l'intérieur kon loolu mooy luñ seq ak nguur gi ci ci fànn googu geneen fànn gi ci suñu biir day am ay réunion intercommission dañ naan tey am na réunion boo xam ne concerne commission communication ak commission relation extérieure wala ñoo tey am na réunion boo xam ne concerne wàllu santé hygiène assainissement ak wàllu commission organisation commission yooyu nga xam ne ñoom dañuy daje parce que seen liggéey am na fu mu duggante ñu war koo texantal war koo war koo leeral yow fi nga tàmbalee yow fi nga yem lañ war a ànd naka lañ koy ànde commission euh, réunion intercommission yooyu aussi dañ koy def ci teewaayu coordonnateur bi ak ci teewaayu secteur général. kon pour waxal na la liggéey bi liggéey bu yaatoo yaatoo yaatu la. mbooloo jeex jeexit moo ki nekk di ci liggéey. boo jëlee rek aussi commission culture ak communication moom laay joxee exemple bi tey ji am na juróomi sous commission ci biir sous commission yooyu commu sous commission boo ko jëm lu gàtt gàtt mën ngi caa fekk lu mat trente quarante personnes boo ci antique mais ñëwaat ci commission bi yore wàllu hébergement ak restauration bi moo Moodu Mbàkke yor moom itam da nga ci fekk lu mat trente quarante cinquante personnes ndax toggal juróom-ñaar téeméer nit rek wàññi rek ñaata wàññ lay war a nekk dërële ba ñaataa koy def oto yoo koy yóbbu donc ñan ñoo koy taxaw buñ fa buñ nekkee juróom-ñaar téeméer nit ñi aussi fa ñuy nekk ñan ñoo fay nekk di ko taxaw di indi darab yi di indi matelas yi di indi ndox nettoyer barab bi liggéey la li ñuy li ñuy li ñuy gis rek moo di ne euh, ku toog télé bi rek di def ab conférence am wala muy def présentation waaye fekk am na liggéey bu rëy boo xam ne mu nekk ci mu nekk ci ginnaaw nit ñi lu mat juróom benn weer du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg lépp rek ngir bisu Sëñ Tuubaa bi mel na war a mel tey itam loolu nit ñi dañ ci am mbégte mbégte la ci bu leen Sëñ Bass tànnee dugal leen ci liggéey bi mbégte la aussi ñu gis ne moom mi nga xam ne moom mooy président bi jiitu du nelaw guddi du nelaw bëccëg du noppalu muy métti encore ci ñu gisee moom mi président bi lu ñu ko laaj nu mën a toll du ne xum day gën a joxe lépp ngir bis bi jag donc boo amee njiit lu mel noonu nag bu fekkee dara ci ngor mi ngi ci yow waroo noppalu lii mooy liggéey bi kon nit ñi noonu la lañuy la ñuy liggéeyee te nag lañ cay lañ cay dabb ak lañ ciy bëgg lépp rek mooy ngërëmul ki nga xam ne moo di Cheikh Mouhamadou Mountakha beneen bi di am ñoo xam ne jàpp ne lu dul jeex moo ci nekk moytu ma yi ngay dégg ak ak ak ñàkk xam fa la yem commission bi ma concerné budget bi xam nga nu mu toll xam nga ko trente millions trente ku la ko waxoon doo gëm li ngi ay centaine de millions la mm-hmm. boobu culture ci la bokk su commission culturelle mm-hmm. boo jëlee wàllu antique ci lay bokkaat mu ñëw wàllu accréditation ci lay bokkaat hébergement ak restauration bi ci lay bokkaat doo xam nit ñi li ñuy liggéey maanaam naka lañ koy réussir ak ak ak moyens yi ni mu day mais loolu warta jaaxal kenn parce que xam nga lu barkeel dafa gën lu bari te suñ duwaay mbirum dafa barkeel dafa sekki ba noppi moo loo ci ànd ak pas-pas rek dafa yàlla yóbbu commission yëpp ci condition yi la ñuy liggéey commission yëpp ci condition yi la ñuy liggéey. waaye sëñ fu ngeen jële xaalis. suñ bas mooy financé. sëñ bas mooy financé. Hmm? sëñ hmm? le moom mooy financé magal gi loolu ñëpp xam nañ ko. am nañ ko xamul ba léegi daa mel ni. kon nañ ko xam tey. lu bëri ci magal gi moom ci poosam lay génnee. moom mooy financé ci comité d'organisation. jërëjëf sëñ bi ci leeral yu am solo yooyu mu mel ni euh, tax nga ba ñu bëree bëri lu leen lëntoon ci comité d'organisation bu màggal Touba ñu xam ko mu mel ni li ñu ci wàllu waxtu daa mat yan kàddu ngay yëkkatee jotaay bi. waa kàddu yi moom ay kàddu cant lay doon kàddu yi kàddu cant moo koy def nag ci turu ci turu sëriñ bi di sant mbooleem ñi nga xamante ne bii rek def nañ seen loxo ci ci màggal gi di sant mbooleem ñi nga xam ne aussi ñëw nañ màggal si. Euh, di sant aussi euh, presse bi di sant itam ñi nga xam ne ñoom lañ seqaloon réunion yi ñu doon def la ko dalee ca chef village ba ci ministre de l'intérieur ak président ba nga xam ne moom moo ko santoon mu jiite réunion yooyu di sant mboolem aussi kër diine yi ci li nga xam ne noonu lañ ñëwee di sant suñu gan yi nga xam ne ñu ngi jóge woon bitim réew def ay six mille sept mille kilomètres mm-hmm. ñëw ngir bésub euh, sëriñ sëriñ kon daal kaddu yi moom kàddu cant la. gannaaw buñ sant gannaaw buñ sant yàlla sëñ bu pare. ñoo leen di amee ak cant. di leen sant nag yéen waa presse bi particulièrement ci seen taxawaay bu rafet. ndax bari na foo xamante ne bii message bi àgg na fa. yéen a ko fa àggale. loolu mooy li réalité. ndax jumtukaay yi bu amutoon doo wax àdduna sëpp di la dégg. te léegi mën ngaa toog fii wax nee naa ne ñu bitim réew ñoom sax ñoo ñuy gën a. bàyyi xel ñoom ñoo ñu gën a seetaan ñoom ñu ci ëpp information yan leeral aussi parfois daf ci daf ciy baax parce que itam nag dañuy liggéey di liggéeyal communauté bi kon képp koo xam ne taalibe nga rek jàpp nañ ne actionnaire nga ci te kon am nañu aussi euh, obligation ngir leeral la bu fekkee da bëgg ñu leeral lañ la war a leeral donc loolu lu lu lu la euh, parce que nit ñi aussi euh, ñu ci ëpp na yàqkat gaa mënut a ñàkk. parce que cent pour cent amul fenn mais li ci moom lu baax moo leen tax a jóg lu baax moo leen tax a jóg donc boo leen leeralee rek bu leeral gi seen bopp foog naa ne dara dara nekku ci kon daal ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu xam ne daal di ñaan yàlla ñu màggalaat ay màggal yoo xam ne euh, màggal yu yu dàq gii sax weesu lay euh, lay doon loolu du yomb nag ndax màggal doon dafa dafa dafa dafa exceptionnel Ah, ak ci mbooloo ci ay xéewal nit ñi njàqare ñu amoon ñu dem waaye kenn ku ne màggal nga ba ba desal <laughs> loolu sant yàlla rek. <laughs> alhamdulilah. jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Cheikh Gaynde ma mi nga xam ne moo jiitee commission culture ak communication ci comité d'organisation bu Grand màggal bu tubaa moom lañ doon dalal tey doon waxtaanee ak moom ci li nga xam ne moo jëm ci bilan Magal Touba édition 2023 bi. indi na ay leeral yu am solo waaye sëriñ bi yow dañ lay santaat bu baax a baax ñun di la gërëm ci turu presse bi yëpp ndax yaay suñu njaatigee ci comité d'organisation bi gis nañ ubbeeku gi gis nañ tamit euh, jàppandal gi ci liggéey bi nga xamante ni kenn ku ci nekk waxtu mu la yittewoo da nga ko taxaw ba la xam ne moom la yittewoo ci wàllum tasum xibaar ak communication bi mu am ci lu kayo njortam ñu ngi lay santaat baax di la gërëm waaye di sant tamit moom Serigne Abdou ci liggéey bu am solo bi nga xam ne réussiraat na ko ren ji ci atum 2023 bi nam ko daan réussir ci at yu weesu ànd koog mboolem commission yi nga xam ne ñoom la bokkal comité d'organisation bi nga xam ne liggéey bi ñuy def Cheikhul Khadim lañ koy defal gis na lépp incha allahu rabbi ñuy sant tamit mbooleem ñi ñu doon bàyyi xel ci biir réew mi ci bitim réew ci mbooleem plateau yi nga xam ne àndoon nañ koo ak ci wàccaay wi ci màggal tubaa gi bii nekk après màggal muy bilan bi ñu santaat leen bu baax baax gërëm leen ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides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 هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر